malgré politique yi ñu def yëpp jëmale ko ci mbay mi malgré modernisation bi ñu jël wax mécanisation bi ñu def yëpp jëmale ko ci mbay mi waaye boo gisee baykat yi ñuy bayee fii nga gis ne moyens yi semence yi intrant yi yegg si véritablement ci paysans yi ñu war loolu nag dafa nekk jafe-jafe yoo xam ne dafa nekk ñu war a doyanti parce que politique bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo tax ñu koy def. nu mu war a yeggee si ñoom yeggewu ci ñoom dafay tax li ñu ko a soppi li ñu ko soppi waaye ñoo bi ñu ñëw fii tamit fekk fekk tax na ñu waxtaan ak yi ak famille xam seen jafe-jafe jëm ci wàllum jëm ci wàllum jigéen ñi naka ci entrepreneuriat loolu dina jaaxal ñu bari xoolee moyens yi ñu yi mais dafay posé problème efficacité politique bi ba mu ndax mu yegg ci ni ma war a yegg waaye aussi ñëw bi ñu fi ñëw tax na aussi ñu jokkoo ak population bi ñu xam ne région de Diourbel aussi bu am potentialité la boo xam ne wala am na ci wax xam ne bu ñu ko développé wala mun na régler problème bu bari ci xew léegi jëm na ci tourisme religieux bi li fi am ci màggal gannaaw màggal gu mag li ci ay nit di jóge fu ne bitim réew ci biir réew ñëw fii donc am na potentialité boo xam bu ñu ko développé woon mun a créer lu bari ci des jeunes waaye aussi tamit jafe-jafe yi nit ñi am ci wàllum ndox depuis boobu ba léegi ak liñ fi mobilisé yëpp ci fon loolu jar na ñu évaluer moyens yooyu politique yooyu véritablement waaye aussi tamit balay jéego yi pour que loolu nekk un vieux problème pour région de Diourbel bokk na ci aussi wax waxtaan nañ ko ak population Diourbel mooy perspective bi ñu jëm élection présidentielle 2024 ak taxawaay bi mu laaj mu ñu am ko taxawaay bi mu laaj ci région bu nekk lay jafe-jafeem lay problème mu jéqi ko jox ñu ko ñu boole ko ci li nga xam ne coalition grande offensive républicaine da koy nal teg ko ba ko def ci offre programme daa ko ciy boole nga xam ne du ñu bàyyi kenn du ñu bett incha allah bu soobee suñu borom bu ñu fi yàlla bàyyi ma 2024 grande offensive républicaine dina am candidat ci élection yi ñu jëm loolu moo waral suñu safar loolu moo waral suñu démarche loolu moo waral ba ñu ko lancé ba noppi tooguñu Ndakaaru kenn di defi communiqué ndox ñoo xam ne seen politique ci communiqué la yem nag am ah, participer ñaari débat télé def communiqué dem toogal sa kër hmm. dañoo décider daal di wàcc dem ci askan wi wax ak ñoom grande offensive république nag amagul candidat hmm. dañoo taxawal suñu coalition hmm. dinañu dellu ci askan wi parce que ñun ñëpp ay acteurs politiques lañu majeur yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga sa parcours waaye bu ñu dajaloo ci grande offensive républicaine ñu ne coalition bi ñu bëgg a tabax dañ ko bëgg a tabax des préoccupations des populations boole ci li ñu xam mu war a suul Demaas mu tàmbalee Mbàkke nag war a yegg Thiès war a dem Tamba war a dem Kaolack war a dem Guédiawaye war a dem Ziguinchor war a wër réew mi yëpp nekkaguñu si débat wu troisième ak deuxième mandat parce que dafa am débat boo xam ne intéressé wul askan bi véritablement parce que askan bi tey problème am du kan mooy nekk candidat deux mille vingt mooy jafe-jafe am tey ban solution lañ ci war a mën a indi tey askanu Touba jafe-jafe yi xale yi am pour jóge Touba di jàngi si Mbàkke naka la ñu mun ci mën a solution te jafe-jafe yu femmes yi am tey ñu wax ko fii mooy problème accès au financement naka la ñuy def ba financement yi ñuy mobiliser muy sunu alal muy alalu réew mi muy budget réew mi mu yegg véritablement ci femmes yi naka la def ba nga xam ne politique pour maîtriser la question de l'eau ak li ñu ciy def yëpp ci moyen naka la ñuy def ba nga xam ne donc question bi nekk une question dépassée véritablement question yooyu moo intéressé askan bi question yooyu mooy question yi nga xam ne askan bi ci la ñuy ak acteur politique waaye du kan mooy nekk candidat ak lu nekk candidat rawatina am na ay bànqaas yoo xam ne ay kuréel yoo xam ne ñoom ñooy saytu yooyu bañ ca yeggee kuréel yooyu lañ ca waral nañ ko ci wax waaye ñun option bi ñu jël mooy nañu dem ci askan bi laaj leen lan mooy seen jafe-jafe. Hmm. parce que souvent acteur politique bi dañuy ñëw ci gox da ñëw sa message da wax ba géex jóg dem bu ñu jógee faxasu dem parce que kenn du jàpp li nga parce que waxoon li nga intéressé. voilà wax li intéressé askan bi. ba pare ba waxtaan ñu ne tournée bi ñuy def kat Mbàkke la ñuy si yow kon loolu day wane ne ñoom jox nañ ma cër day wane ne yëg nañ ma day wane ne bëgg nañ tamit askanu Mbàkke bu ñu ñëwee Mbacke waa Mbacke jàppale bi nga xam ne moom laa ciy taxaw mooy bis ni tey li ko woon sax ci laa pour li nga xam ne mooy suñu coalition bi di gor grande offensive républicaine lool ci département Mbacke dem ci commune Mbacke rek nekk am naa ay nit di nekk am naa fa ay xarit yi nga xam ne moom lañ yor tey muy lu bees loo xam ne tey dañ di ab coalition bu bees ba fexe ba askan woowu jot ci yaakaar naa ko ko Ablaye fay waxe ñëpp dégg nañu parce que coalition la boo xam ne su bu ñëw Mbacke kon ñun lu ñu war rek moo yaatal ko ci ci département Mbacke moo tax loolu ñun ci xar suñu tànk tubéy fexe am beneen taxawaayu politique nag parce que yaakaar naa ne ñun xamante nañ ak yéen daa leen ma gis mu daan nekk fu mu daan jàpp ak yëpp loolu léegi lépp loolu lépp jeex na voilà léegi loolu lépp jeex na lan moo fi nekk dama am mouvement takku liggéey bokk ci coalition grande offensive républicaine kon damay fexe nu coalition boobu jëme kanam nu coalition boobu amee ndam ci taxawaay boobu suñu ko tey ci loolu laa leen na ñun suñu ay jafe-jafe mooy xëyu ndaw yi d'abord parce que xëyu ndaw yi bu ñu xoolee ne Mbàkke bari ay ndaw mais ndaw yi ci bëri amuñu liggéey da ngay gis ay xale yoo xam ne dañuy dawar sareet ñii ñu ngi ci jakartaa yi ñii ñu ngi ci liggéey yoo xam ne xëy na na am liggéey lañ sax quoi waaye war nañoo mën a yeneen liggéey yu gën a kawe yooyu ba tax kon ñoom bi ñu dikkee wax xamal naa leen ne leen ndawi Mbàkke ñun dara jàppale nañ ci wàllu liggéey ci wàllu xam-xam aussi parce que ay étudiants ngi fi ay jàngkat yoo xam ne jàng nañ ba pare am seen bac mais dañu toog defatuñ dara te ñooñu war nañ mën a wax ñoom bañ jógaat ba nga xam ne su àggale seen njàng wala ñu dem defi formation yoo xam ne buñ ko defee buñ noppee war a mën a dem liggéey bon jigéen ñi gis nañ leen ñun ko xam suñu jigéen ñi fii loo xam naa ko président Macky Sall bi ma recevoir naa ko jigéenu Mbàkke département bi mu jigéen ñi tàllal loxo ak jigéen ñi liggéey jigéen ñooñu nag liñ bëgg mooy ku leen jàpp la leen si wàllu ay financement jàppale leen si loo xam ne ñu ci mën a loo xam ne ñoom buñ ñëwee taxaw ñoom jigéen ñooñu ba ëllëg dañuy mën a taxaw mën a ba mën a sax seen borom kër yi ci kër yi ndaxte xam ngeen ne fii gis ngeen ni mu demee borom kër yi sonn nañ te ñoom jigéen ñi ñoo bokk kër yi kon war nañoo mën a jàppale jigéen ñi ba nga xam ne ni góor ñuy xëyee di wàcc di ñëw di indi dara muy am koom jigéen ñi aussi di am am koom moo xam ne dañ koy indi dañ koy indi kër gi ñoom tamit waaw loolu waxtaan naa si ak ñoom pour yo baale ko pour bu ñu demee ñoom tamit ñu gën ko yaatal ci biir coalition bi gën koy waxtaan ba fu ñu jëm ñoom aussi ñu yóbbaale ko ñun Touba mooy suñu problème parce que Touba la fay jóge ci élève ñoom Mbàkke dafa bëri trop ndax école yi ci ëpp Mbàkke lañ nekk da ngay gis xale yi des problèmes transport lañ am parce que bi ñuy buuxante bu ñu xëyee oto yi ay Mbàkke Touba yi la ñuy dugg bon yaakaar naa bu cinéma daa ni mu demee nga xam ne xale yi bu ñu man dama daan taxaw foofu bu xale yi wàccee man maa doon nekk policier bi foofu ndax sama wetu place bi looy ñëw taxaw ne chauffeur bi da ngay taxaw ba xale yi yéeg ba pare parce que xale yi dañuy ñëw taxawee rek oto bi day départ foofu xam ne aussi xale ñuy nekk di tafu portable xale yi di tafu seen xaalis ay xale yu ndaw loolu tamit jafe-jafe yooyu wax naa ko Moustapha mu yóbbaale ko ba nga xam ne lépp loo xam ne mën nañ ko cee saafara vraiment ñu saafaraal ñu ko aussi yi jàng lañ bëgg gëm jàng mais tamit parents yi dañuy am ay problème moyen yoo xam ne aussi day metti trop ci li nga xam ne moom la xale yi di ñëwee di jàng si beneen bi aussi affaire état civil Mbàkke ku nekk xam na ko état civil bi aussi ko parce que fii dagay dem am sa extrait de naissance wala sa bulletin de naissance Mbàkke nga juddoo am acte E ak lépp mais dem tey joxe ko ñu ne la gis ñu registre bi mais registre bi kan moo ko sànq waa mairie ñoo ko sànq bu ñu paree la demal tribunal nga def annulation tribunal boo demee da ngay fay mairie huit cent dem tribunal fay neuf mille muy neuf mille huit nañ toog bi mu toogee wax naa ko ma ne ko xale yu bëri tey seen njàng yàqu na parce que seen i lay amuñu lekk bay fay neuf mille huit cent seen benn doom rawatina na ko am ñaar ñett ñeenti doom bëgg leen a dundal bëgg dem di fay neuf mille huit cent te annulation man nee naa ko président nee naa ko président d'accord ma ci annulation ki nga xam ne dafa judd judd bu normal am kayit extrait bu normal am bulletin bu normal dem extrait ñoom registre ba yéen waa mairie ñoo ma nga ca sac vrac ya waaw sac vrac yooyu kan ko créé maire bi ko keree ah. ba commission li ñu demandé ñun demoon nañ def benn marche fii après bi ñu demee préfet wooñu woo président tribunal ñu bokk toog waxtaan ñu ne affaire bi léegi ci gouverneur la des ñoom danañ soññu gouverneur mais soññu gouverneur ba léegi bëgg dem woo naa sëñ mais man ko léegi nañ dem gouverneur seeti gouverneur bu ñu demee ñu ko ne ko nag léegi affaire bi nee nañ si yow la dese mais taxawal la commission bi nga xam ne moom la war a taxawal nga taxawal ko pour ñu mën a def euh,